Bienvenue sur Salam Vision. ci question bi de. ñu ngi ci làmb yëpp la. booy ñaar mbooloo. allah. Ah, jërëjëf kontaan nañ ci yow. maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu euh, Gora ak Fallou. jërëjëf. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak Diallo bi nekk ICG. ay ca per. man de Papa Sow mi dana koy yëngal tey la Papa Sow ma moo may xeeñ de.

ah lacrymogène yi day waruñu ko war a taal ma ma ma maa ngi leen di arbitré dafa mel ne am na loxo ji bi. muy yëngu foofu. waaw rési bi moom bu fa demee du baax moom. dafa dafa mel ne am na lu de. dama bañ ngeen jaawale bouton yi ngeen a bës. baal ci biti bu la benn heure grand combat la ñu maa ngi soufflé. arbitre soufflé na grand combat bi. arbitre soufflé na. tey dimanche ginnaaw takk sa ngar ci ginnaaw. dimanche 6 novembre 2022. sore nañ ñaari mbari diggante Papa Sow ak Siteu. ah dina nekk per. arbitre sifflé na diggante Papa Sow mu jóge ci combat. digganteem ak Ama Baldé le 17 février 2018 jële ci defet moom Siteu jóge ci defet le 29 avril 2018 digganteem ak Gouye Gui jële ci defet Papa moo ñu woon ginnaaw noonu per Paare Diop. waaw Siteu lañ jàkkaar lool. xam fu mu nekk nii round d'observation la ñu def. kenn ku nekk yaa ngi may distance sa morom di ko xool di xool lan la indi ak lan la war a def waaye xam naa ne du ci mujj dafa fiyee Papa Sow dafa jiital tànku càmmoñ si te teg euh, tànku ndeyjoor léegi nag kenn ku ci nekk yaa ngi leen tekk xool leen bu boobaa nag dana leen woowaat wax ñoom avertissement verbal bu ñu ko nanguwul avertissement yi dina waaye xam naa ne du lii la ñuy bëree. déedéet duñ mujj ci lii si. du lii la Siteu pied droite. waaw. Papa Sow pied gauche. waaw ñii lay doon di dégloon de. protestant bi. Euh, oh, wala mu rëy ci moom rek. waaw protestant. Siteu ngi wax ak Papa Sow. waaw ñu ngi ñaari mbër yaa waxtaan. xeex leen bëre. dañuy naxante dañuy naxante waaw xam nga nag jëlal sa temps ak bu lakkam sa combat bokk la nga taxaw 4 minutes rek sa adversaire nag. waaw mën nga jël sa temps mu gën a jël sa adversaire mais dangeen xaw a jigante. mais lii round round d'observation la mais duñ ci mujj de. ah xam nga duñ ci mujj bien sûr ah yëpp. avertissement verbal bi avertissement verbal bi amee rek di bëri. su at bi xoolee benn une minute. waaw defuñu dara dinañu wax ak ñoom. parce que combat bi ñaari dix minutes bu ñu ko fàtte waaw kay bu ko. Malick Ngom mi ngi wax ak ñoom. fay ñu leen pour ngeen leewaatoo dañ leen a fay pour ngeen xeex bëre Papa Sow jàmbaaru wrestling académie Siteu écurie Lansar arbitre bi la wan na Poulain Balla Diouf Poulain Yaram Gueye Poulain Cheikh Ndiaye seer jàkkaarloo ak Siteu bu Lansar combat soo sumaaree day xëy day jékki-jékki. laser yi ci kawam. laser est-ce que sax na ci bët. non laser la caaxaan la laser sans bëri yëpp waay. laser yi mënuma tere bëri. ñaari bëri yu bëree jàkkaarloo di xoolante. nee na bëgguma leen avertissement. xooluñu laser nee na bëgguma leen avertir. nee na bëgguma leen avertir. waaye nee na jigéen ñi seen loxo yi laalante au moins. waaw. ne ñaari loxo yi laalante ñu xam ne yéen am ngeen intention bëri. ñaari mbëri a ngi leewaatoo sore ngeen. ñaari tey la ñu xam nag tukulóor ak séeréer kan mooy kan mooy buuru moroomam tukulóor jaamu séeréer la gars yi doon wax ñu ni séeréer jaamu tukulóor xanaa tey dina leer per ah, <laughs> xanaa tey dina leer. mu nekk nii dara leeragul. dara leeragul ndax ñaari mbir dañoo sore. information aussi. et pour ceux qui nous suivent yaakaar naa ne bu ñu tàmbaloo bëre bu jeex. pour gagner il faut rester debout les deux lutteurs sont déjà debout Papa Sow à votre droite de dos Siteu en face de vous. Siteu ngi ni càkk di ko xool. taxaw ba di jonn. avertissement benn avertissement ci nekk am nga benn. mu mel ni bi làmb ji commencé ba léegi kenn defu ci ñoom. lu yoon di waay man daal yóbbu sama xaalis daan ma. si te tekk na sewoor ba sax. boobu am na lay comme niñ koy waxee. Papa Sow ak Siteu coow li coow li ñëpp a ngi instant bii. mais Aspa la kan moo war a diriger bi ñoom ñaar logiquement rek ci ci taarixu lamb. waaw xam nga logiquement. jàpp naa ne papa moo war a diriger combat bi waaw parce que loolu lañ ko xamee te loolu mooy maninam te loolu mooy ay fooram bu dee nag dañu xool ci âge aussi Siteu war na mën a diriger Papa Sow ndax distance d'âge bi nga xamante ne am na ci seen diggante ndax papa fu mu nekk ni koy xool bëri na lu mat vingt ans ci carrière am kon tey amatul dara avertissement

la ma sàkk woon ci policiers yi laa gis te bañ a seetaan jàkkaarloog nit ñi. waaw lii laa laa bëgg bu ngeen pare ngeen seetaan ko ci Lutte TV. ah man de wax dëgg yàlla jàpp ma woon ni combat bi dina yàgg di déedéet. laa ilaaha illallaah dina dina di attaqué mais ay combat day am round d'observation. parce que boo xool combat ma bàyyi ma njoon. kenn avancé woon nañu xam kan moo ko kan moo ko. boo xool combat mag Baye Mandione presque minutes waaye bu ñu songoo jàpp naa ne bis bu ñu songoo làmb ji jeex. nee nga Paa la nee moo ko dirigé combat bi ci benn côté d' accord naa ak yow. waaw nangu naa aussi ne surtout aussi dafa war a bi ndax jeunesse ndax jeunesse. sondé ndax mooy xale. moo war a diriger combat bi logiquement. waaw bëgg nag mooy outsider. waaw bisimilah. Papa Sow Siteu ñu ngi leewaatoo ba léegi dara xewul. Malick Ngom da leen di jox troisième avertissement. wala daf koy toléré. ndeysaan da koy toléré. Malick Ngom bu ñëwaatee day dugg ci seen xaalis de. non dafa bañ a ah. Siteu ak Papa ngi leewaatoo ba léegi rek dara amagul ba léegi diggante Siteu ak Papa Sow. non attitude ñoo ngi leewaatoo Papa Sow Siteu ba léegi dara xewul xeex amul. jàppante amul leewaatoo bu neex sax fi li kay kenn xamul lan dama dama gëm nañu huit minutes ah huit minutes de balancement gën a néer yéen. ñoom ñaar ci daan ak ci daan yëpp du tee làmb nekk làmb. ñoo ngi leewaatoo rek combat bi nag dafa diis si ñoom ñaar ku ci nekk combat bi dafa diis ci yow. Papa Sow ni mu taxawee nii. waaw taxawul taxawaay kuy dem. ah taxawul taxawaay kuy tamit taxawul kuy dem. ndax taxawaay kuy dem boo ko bëggee def foog nga fléchir un foog tànk yi taxaw. commencé nañoo samp jàngat vraiment seen xaalis bi ngeen yàq ba ba pare bëgg a bëre. surtout commencé na dëggal. ah commencé wàcc ah loolu mooy bu ñëwee ma song la ay waay. léger bi mbaa. léger léger waay. loolu mënoo ci dara léger yi mënoo ci dara. ñaari mbër yaa ngi noonu. Papa Sow yëgul sax laser bi. waaye laser bi daa mën a tere kenn man de mosuma gis ñu teg ko mbër ba mu kii. fu ko lël sa bokk tegee du ko amee dara. yaa ngi wax. bi muy bëree ko machine dañ ko koo teg mën ko yëgu yëgu yëgu ko sax. c'est pas beau à voir. mais ñu ngi Cheikh Top Couture. Cheikh Top Couture ñu ngi koy nuyu bu baax a baax tey bu mag bi. di nuyu maam góor. maam góor ci si góor yombul. Aliou Serigne Babacar. di nuyu Assane Tayer. asanteer. nekk ca talib bees. ñu ngi koy nuyu waaw. waaw ñu ngi koy nuyu baax xam naa ni di nga fa dem parce que lii ma sol moo ko ñaw. ah waaw ah. waaye xam nga ni Cheikh Boutiir kenn du moom. déedéet nekk ca marché Xelkom. waaw maa ngi nuyu mais a fànn ne ca en Europe nekk à Lyon. waaw di suivre làmb ji. ana Mohamed Gueye El Hadj Madiagne Guèye mi ngi seetaan làmb ji. kër nuyoo ko Mouhamed de. ñoom ñu naan Mouhamed Guèye Guèye Mouhamed Guèye. ah dégg nga ak Madiagne Guèye ñoom ay defu làmb lañu. ndeysaan xanaa dañu ko doon nag ndeysaan. wallaay de de. loolu day dëgër. Papa ah, Sow ne neexuñu. mais foog mu temps bi jàll ñaari mbir bi jàll bientôt ñu def minutes. làmb ji deuxième kii bi lañ ko bëgg bëre bis bu ñu demee ku ci nekk ragal naa say mbokk téye la de. téye ñi kenn du leen téye baax na. sible na waat arbitre sible na waat diggante ak Papa ñoom ñaar ñu ngi leew toowaat premier dix minutes yi bëre nañ ko ba mu jeex des na deuxième dix minutes mu daldi jeex ni ñu commencé woon lañuy ñuy bëreewaat ñu commencé woon noonu lañuy ñuy bëreewaat Siteu dafay déglu Papa dafay déglu Siteu a ngi ñëw mooy xale loolu la gaa yi wax Papa wàcc na ba ci suuf Papa Sow wàcc na ba ci suuf Siteu dagg na léewtoo bi sita mi ngi avancé Siteu Papa Sow Papa Sow def na yëfi ninja léegi la def yëfi ninja la def vingt heures quarante cinq minutes nee nañu tekk jom ñaar ku nekk déglu sa morom Papa Sow dagg na léewtoo bi dem na ba ci digg géew bi demaat na latéralement côté gauche Siteu dagg na léewtoo bi Siteu dagg na léewtoo bi attention Siteu dafa mel ni ki dafay dem Siteu a ngi dem ndànk-ndànk dagg na waat léewtoo bi xeexaguñu xeexaguñu 20 heures 44 la ñu ciblé deuxième bi arbitre yaa ngi déplacé wu di xool bañ dara du leen rëcc si taa ngi dox si kaw Papa Sow daf ko bëgg a jàpp de kenn xeexagul Papa Sow dagg na léewtoo bi dem na ba ci digg géew bi Siteu Papa Papa pied gauche Siteu tànk ndeyjoor fausse garde en sport de combat ñoom ñaar lewtoo kenn xeexagul kenn dooragul sa Papa Sow wàcc na vingt heures quarante cinq minutes une minute de combat si deuxième round bi 6 novembre 2022 jàmbaar production dëgg Siteu Siteu attention Siteu xeex na jàppal si eh, Siteu rëpp na Papa Sow jël na Siteu Papa Sow jël na Siteu eh eh Siteu daan na Papa Sow jël bu set wecc Siteu daan na Papa Sow jël bu set wecc laa ilaha illallah quelle prise laa ilaha illallah quelle prise laa ilaha illallah quelle prise de Siteu ko prise tëgg ko mbot oh Papa Sow daan na la déception de Papa Sow la déception de Papa Sow la déception de Papa Sow. Siteu daw na dóor dóor quatre appuis quatre appuis am na wala amut am na wala amut. la ilaha illallah lu xew. Siteu daan na ko Papa Sow jël bu rëy. la ilaha Siteu daan na ko Papa Sow jël bu rëy. nan xaar arbitre. Siteu li mu xaar arbitre nan xaar arbitre ay daan na ko. kenn musul gis lu mel nii. nan xaar arbitre jox na ko victoire. Siteu Papa Sow bopp Papa Sow moo génn ci Papa Sow bopp bi ci biir la nekkoon Papa Sow dafa génn mu fel ko Bienvenue sur Salam